am benn waay bu ñuy wax docteur Khadim docteur Khadim euh, ñu bëri dañ maa laaj ne ma yow ki ngay tudd rek Khadim Khadim bu ngay tudd ñun ko mhm. fekk bi ma demee bitim réew mhm. moo ma jël si aéroport yóbbu ma bi ma yegsee sama kër fi ma war a dal mu wàcce ma jox Philips kooku moom du ko fàtte mu ko Philips dama mm-hmm. xarit la mm-hmm, te dafa ma bëgg su may nuyu nii lay def ñaari loxo nii euh, mu ne ko demal jënd garab sangam nga jox ko mu naan addami ci ëllëg sa ñu yóbbu ma feneen maa xaadim docteur xaadim mu di ma topp maa moom maa moom bañ ba ñu ba ñu dese centre bi nga xam ni foofu laa war a fajoo sa fa fa la garab yëpp daje garab yëpp dañ koo dajale a jox ko ko jox leen ko garab yoo xam ne boo leen naanee gisuma la mbaaw danga jaar naan garab yi nag buñ xëyee fukk ak fukk ak juróom danañ ma ko jox may naan de ah, man sama yaram ni meloon baaxul dafa daan lox su may sol yére damay lox su may lekk damay lox dara mënu ma ñu téye ma xaadim dimanche bu jot mu ñëw seet si ma am na bés mu seet si am Pape Diène moo wax mooy ki fii di wax Pape Diène mu woo ne ko waaye yow ñun suñ malade bi tey kontaan na de xoolal ni muy waaxoo di ko filmer di ko wan may waaxu ba mu yàgg may daw mu gën kontaan xam nga loolu loolu fajkat bu ne mhm. ka ngay faj wér moo la gënal loo am mhm. beneen bés mu ñëwaat beneen bis mu ñëwaat beneen bis ba mu ñëw ànd ak jabaram doomu tanoor ñee Ousmane Tanor ñee kii doomu Ousmane Tanor mhm. euh, noonu la jàppee téléphoné na fa man ak gars yi ñu toog mu laaj leen gars yi wax ko lu rafet ne ko moom daal alhamdulilah fi mu ne kay fi mu ne sayee mu ne ma ah gars yi de gërëm nañ ma ma gërëmal leen ma ne ko waaw gërëmal ma leen ah ñoom tubaab la ñuy làkk man xamoon la ñuy làkk di bu ñoon dañ nañ ko rey fii fu ma jëm xam fu ma jëm ah ndeysaan euh, euh, euh, docteur Khadim nekk ak man noonu ba le treize suma juumul mu ne ma ci ngay jógee foofu nag le matin ma jógee fa le treize mu ne man dañ lay yóbbu feneen yóbbu ma ci beneen jigéen ma xool ma ne sa yéen ma defal ni seen loxo ma tàllal bii di def ni tuuti mu ne ma bii mu ngi lay wutu waaye baax na dem naan garab yi rek ma jógee fa dem hôtel mu fekk ma fa moom docteur Khadim ak hôtel ak col goo xam ne nag miinu ma ko mhm. parce que ci liggéey la nekkoon mu bàyyi liggéey ba ñëw ndax maladie rek mu ñëw fekk ma fa waxtaan ak man dugg ak man ci oto bi ñu dem ba aéroport ñu wàcc foofu man foofu laa duggee oto acca maag Philippe ñu ànd dem ci avion man nag nekk man bind na ma dépense ti man seetuma ko tey jii le premier tey laa ko seet tey laa ko seet gis ko man dañ ma koy yónnee rek du ma ko xool mhm. man boo ma yónnee message du liir du ma xool dara danañ may yónnee xaalisu grand cœur mu am ay weer borom wooma ne ma waaw yow xaalis bi ma la yónnee ndax jël nga ko ma xool ko doo ko man noonu laa mel téléphone am ci awma problème sama téléphone baa nga ne li anamu anamu téléphone bi ma am indi rek awa awan am téléphone bii de laa yor waaye mm-hmm. bu ngeen sonee ma so mën de. bu ngeen wuyoo ma wuyu. bu ngeen wootee ma woote bii laa yor mm-hmm. waaye docteur Khadim ndeysaan mu def dépense yëpp tout fayuma ci dara dara defuma ko ci. tëram mm-hmm. fayuma ko yëkkati un million jox ma ne ma bu ma bu ma ko seetee bu fekkee ne des na mu yónni waat la ko far mu ëpp sax. mu ëpp xam nga kon bu ma joxaloon million bu ëppee da koy da koy da koy jël waaye waaye mu ëpp mu ne ma garaawul ku baax la docteur Khadim ku baax la baax la nit la koo xam ne daal maara day taali kooku nag laay tudd naan Khadim Khadim Khadim mooy docteur Khadim ti ti ti ñëpp ñëpp ñëpp tubaab yi ne foofu dañ koo respecté tubaab bu ku nekk ak sa ak sa sa matière ku nekk ak sa matière bokkul ak Sénégal gii de nga naan mën naa li mën naa cam Sénégal du mel noonu fële ñoom kii lii kii lii kii lii kii lii ñëpp pare nag ñu dajale garab yi bu sant kooku moo la yor ak euh, bu may def kii nii mas ma boole moom mu ne ma oustaz euh, nañ may woowee monsieur Badiane monsieur Badiane yooyu itam dégg naa da daw kii bi kii bi ma ne ko déedéet maa ngi dem maa ngi dem kii jigéen ju ko tudd sax dama lay bàyyi ki ne rek ki ne rek waaw dafa méttee méttee métti fa maara day taali man daal man xaw na maa dee rek waaye tabaarakallaahu waaw tabaarakallaahu xaadim ku baax la xaadim ku baax la waaw docteur ku baax la ku ku ku mën a dimbali njaboot la xam naa ne daal ku feebar ba jublu ci moom am nga chance ku feebar ba jublu ci moom am nga chance parce que mu amul caaxaan amul kaf amul kaaj benn caaxaan farata rek waaw ku feebar ba jublu ci moom sa am nga chance ku jubluwul ci moom da amul chance nag waaye ku fa jublu da nga am chance fa tabaarakallaahu kooku laa bëggoon wax rek ñu xam ko bàyyi ko xel ci yëpp loolu rek la mu demee xel rek demee xel rek président mu demee xel rek xel rek na demee xel rek gis nga bu demee xel dana fi jógee te dara du yëngatu su demeewul xel ah, du baax de na demee xel rek waaw la ma ko ñaanoon nag rendez-vous ba dexoo joxaguma ko waaw rendez-vous ba daal moom joxaguma ko su ma ko joxee rek da ngeen ko yëg waaw joxaguma rendez-vous bi nag waaye nee naa ko su ma ko mënee jot ma gisee moom su ma ko mënul mu yónnee ma ndaw rek ma jox ko ndaw li waaw na ma yónni ndaw ma jox ndaw li mhm. man gis ko gis ndaw li réem rek mhm. yem ci man waaw parce que bu ma ko gisee mhm. baax na su ma ko gisul mu yónni ma ndaw ma jox ko ndaw li mu yóbbul ko moom waaye nag yóbbante àq la dafa war a yegg loolu moo ci nekk président Macky loolu rek la rëgéen jëf macha allah jërëjëf mbokk yi di kontaan bu baax a baax a baax waaye di gërëma waaw xam nga sëriñ Babacar Si radiyallahu anhu da daan wax ne lu cher amul loo amul njëgam moo cher nañuy ñaan yàlla rek luñ yokk yokk ñu am luñ ko jëndee waaye nag xam nga euh, féetee ca ker ga bàyyi nit ñi ci naaj wi bokkul ci xel ñoom ñoom ñoom ñoom ñëpp duñ lekk ceebu réew mi déedéet beneen ceeb la lekk ndawal gu fanaan sax duñ ko lekk oto oto bu climatisé duñ ko dugg waaw yooyu yëpp boo ko xalaatee ci yow nga jël ko jox ko nit mu dugg ko nga ne ca naaj wa da wàññi li ngay def ndax ku nekk ci naaj amoon na benn bés Pape Sampol de la xaw ma ko déggee nag mooy dafa toog a toog rek ñu gëj koo gis ñu koy seet ñu ko garde gisatuñ ko ne ko yolleeku na dem ca àll ba ñu fekk ko fa ne waaw luy def fii mu ne damaa yàgg ci lu neex di xool lu métti yàgg ci lu neex may mhm. xool lu métti c'est ça lu naqari da nga koy mos waaye gis nga nit ki mosul lu naqari mhm. mooy diisal rek war nañoo wàññi nag wax dëgg yàlla mhm. ndax yow wax fukki junne si amee am nañu am juróomi junne nañu fay ñii trente mille ñii vingt mille waaw ñooñu bu fekkee ne dimbaliwuñ leen sarax leen Amadou Ba na delluwaat moom mi nga xam mooy premier ministre mu wax ci mbir mi waaw Amadou bana wax ci mbir mi su ko defee ñu wàññi ko suñ ko wàññee baax na suñ waxtaanee gis nga li nga bénéfice bu baaxul man laajal xale bii saali ñoo nekk te rus naa fen ci kanamam man mbuusu galaas fukki dërëm laa koy jaay ndox mi ñuy jaayee fukki dërëm mbuusu ndox bi jar fukki dërëm ñaar dërëm laa koy jaay laa koy jaay ñaar dërëm la bi jar fukki dërëm laa wax de ñuy jaayee fukki dërëm ñaar dërëm laa koy jaay moo bi ma solo yem ñaar dërëm lay jar bu dee mbuusu galaas fukki dërëm lay jar ak lu mu métti métti loolu lay jar parce que bénéfice bu tuuti moo gën a barkeel lépp li nga bénéfice yii ñuy def nii bénéfice yu bëri yi ñuy def ak jaayee lu ëpp yooyu yëpp da leen di gaañ rek nañu wàññi ku ne nga seet sa diggante yàlla bul xaar xaar ba président wax wala ministre bi wax da ngay xool sa diggante yàlla li nga xam ne doo daanu rek nga jaayee ko loolu waaye yokk boo xam ne amul benn anarchie rek la fawdaa rek la kenn ku ne nu la neex ngay jaayee kenn ku ne nu la neex ngay ti kaay boo doon jënd nga xam da ngay jël place kiy jënd nag léegi jox ko place kiy jaay nga xool c'est sax boo ko defee rek da nga da nga wàcc bénéfice bu ëpp baaxul bénéfice bu bëri baaxul dafay dafay dafay indi toroxte rek ci liggéey seetal yow bul xaar sax ñu lay woo naan la woy dafa lii nga naan nag ni ni ngay def mooy seetal euh, li jaadu nga jox ko li jaadu joxe ko sa ça waaye nag lii laa jënde woon ba ko jëndee fukki dërëm laa ko fukki jënde woon far nañ ko yokk sax far am na am naa mille francs gis nga loolu nga ca teg yàlla na ko tegi waylun lil mutaffifina alladina iza ktaaloo ala naas yastawfoon wa iza kaaluhum aw wazanuhum yaxsiruuna ala yazanu ulaika yàlla nee na am na nit ñoo xam ne bu ñuy jaay nit ñi dañ koy wàññi duñ ci xool dara de su ñuy jaay nit ñi dañuy wàññi waaye bu ñuy jënd ci ñoom wàññi ko suñ leen di jaay yokk loolu doxul da def loo xam ne rek li alxuraan wax rek nañ ko def di def lu yem te yàlla bu waxee nga weddi li mu wax bis bu ñëwee ci sa kaw da nga yàlla wax nga weddi li mu wax ah waaye Iran day rek ay loolu ku koy def ba bés bu yàlla ñëwee ci sa kaw nga da nga doyal nañ leen fexe rek nañ leen fexe rek seet li yàlla bëgg ñu di ko def seet lim bañ ñu bàyyi ko loolu moo ñuy dimbali